ونجله من أجله أجله من سطوة الحجاج لم يكن وقي بابي ميغا قمنا مو جفون جف جوجو بسيدنا عثمان تجكو كسو مفاتو تي كسوغا ميتة المحزرق ديهن كن قتل محزرق موي كن قتل kuñ tëj ci barab bu xat al axsha waykat boobu moom la doon way ca an nu'man ibnul munzir jamono yu ko kisra buuru faris tëjee ca saabaatul madain bam deefa fa daaka wama anja an il mawti rabbahu bi saabaata xatta maata wa huwa muazraqu muazraq ay kuñu xatal لي من هو نجله دومم جمم دابي من أجله غير موم غير جف جوج مجفون تون يوي متونون أجله حبم أب دوم جا لم يكن نكل وقيد فجف من سطوة الحجاج تي صنغك حجاج الحجاج ابن يوسف الثقفي حجاج كسيولة تاريخ بني أمية mi ngi tombe woon jamono jamonoy Abdul Malik ibnu Marwan moo ko faloon gouverneur mu nekkoon ku jéggi dayoo ku tar taarix nettalil na ko ay ñaatoof yu bari ku gaawoon ci rey nit euh, moo rey doomi daabi moomu te la sabab mu rey ko yépp mi ngi bàyyeekoo ci jëf jooju bàyyam jëfoon euh, nee nañ bi nga xamee ne daabi tëj nañ ko kaso ba mu faatu benn bés doomam ji muy Umayr ibnu Daabi daa jël paaka def ko ci suuf dàllam solaale ko ciw dàllam fas yi yéene yongu Seydina osmaan ñu daal di koy jàpp boole ko Ousmane am na ñu ne sax nag jëf ji Daabi ci boppam la benn bés la Ousmane doon nemmeeku ñañ tëj ci kaso ga rek fekk moom waajal na boppam solaale aw solale paaka ci biir dàllam fas yéene yongu Ousmane waaw am na ñu ne jëmmi daabi ci boppam la waaye eh, am na ñu ne Umayr ibnu daabi la biñ ko xamee nag ñu indi ko ci Ousmane ci lañ ko jàpp duma ko delloowaat ko ci kaso ga na ci la waxoon way wi ne xamamtu wala walam afal wa kittu wa laytani taraktu ala Ousmana tabki xalailu yitte woowoon naa faat Ousmane waaye defuma ko wa kittu xaw naa xaw tuut rek ma def ko walay tani ak a neexoon ma def ko euh, euh, ak a neexoon taraktu ala Ousmane tabki xalaa ilo ak a neexoon ma bàyyi Ousmane ay soxnaam di ko jooy maanaam ma faat ko euh, bi nga xamee nag fal nañ xajaaj Kuufa nee bés muy istinfaar nit ñi di leen soññi pour ñu xeex ci la dox ba gis umayr ibn dabi fekk muy mak mu laaj ko yoy kan mu ne ko man maay umayr ibn dabi xajjaaj jo ndigal ne nañ ko rey ne ko yow anta saaxibu usman yaay ka doon bëgg a usman mi ngi noonu kon wa najluhu doomam ja moom daabi te doom ja mooy umayr ibnu Dabi min ajlihi ngir moom ajaloo ab appam أب دندم لم يكن وقي من سطوة الحجاج من وستر نغا سترال عن الحصاد ولسوي أنيانيا كل نعمة جب قول سوي أنيانا نغل نبو سي قول كنان لبن لا كو أنيان باغل موتع القرآن دي مسلو ومن شر حاسد إذا حسد arabi nena al hasud la yasud nah, yow mi bëgg muccu ci say way añaane nak da leen nëbbu say xewal wala fi sax wax ne ku ku kuñ xam fa nga jëm do do yegg wastur anil alxusaadi kulla ni'matin kam faadilin bari na ku bax suqi nandaleef na bi kasi makrihim ci sub sen pexe ñom way ya mu jox la ci misaal mu ne fa saacidun saacid ibnu alxusayn ibnu isa albagdaadi allugawi saacid moom nga xam ne mooy borom téere bu ñu tuddee alfusuus bokkoon ci ñi gën a siiw ci xam-xamu adab ci jamono yi Hisham ibnul Hakam la demoon Andalos mooy fi ñuy wax Espagne tey dem ca kilifa gu ñuy wax al Mansour ibnu abi Amir kooka teral ko teral gu reuy boole ko ci ay xajam mu nek fa ab diir yeneen borom xam-xam yu nek andul añaane ko euh, dem ca mansur momu yaq fa daram naral ko ne mom day sacc way nit ñi diko ko askane boppam euh, ben bés euh, ñu indil Mansur ben palat bu am fulooru warda bu rafat fekk saay dañu toog saay daal di way ci munaasaba boobu badihatan ne atat ka aba amirin wardatun yudhakkiruka almisku anfasuha yudhakkiruka almiska anfasuha ka كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها أتتك ديكل نلا أبا عامر يو المنصور مي ابا عامر ورده ورده فلور يذكرك باب دنا فاتل لا انفاسها اي نويم المسك آه، بحر بي فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول متقارب أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاسها Ah, Mansour daal di bég lool ci way wi nga xam ne moom la Saa'id way badihatan waaye ku ñuy wax Abul Qasim ibnul Arif ma nga woon ca jotaay ba ne Mansour kii bayit yi da koo sàcc du ay wayam waaw ndax bayit yi saddoon na leen ca Misra ne bayitu Abbas ibnul Ahnaf la ah, ne ko bayit yi sax bindoon na leen ci gannaaw benn téeram waaw daal di dem indi kayit goo xam dañ caa bind bay de waaye fekk loolu yëpp moom moo ko euh, moo ko créé waajal ko rek ngir yàq deru euh, saaxib Mansour nag daal di mere saaxib euh, ci jëf jooju ne ko yow yaay sàcc waaye jàmbur ñëw fii di ko askane sa bopp gannaaw gi nag ab diir nee nañ xam na ne loolu luñ sosal saaxib la rek waaye si dëgg-dëgg wayi ay wayam la moo tax delluwaat na wàcceewaat ko ca palaasam di ko tëral moo tax mu ne nag kon sa way añaane delen na bu gépp xewal fa saacidun saacid ala madiixi wardatin ci tagg benn fleur asbaxa la xëyee mun xattan di kuñ sippi kuñ sippi darajaam ca buur boobu muy almansuur bi xawli saxwaqi ci waxi ab narkat mu ne wafqar na nga puugarewu ka faxri xaalidin lu toll ni puugare xaalid bil xiiri ca njëgg ma wan nafiiri ak aji foñ jëm ca xare ba laa bul puugarewoo bi xullatin ci koddaay loo xam ne min saraxi mi ngi tukkee ci xariir sooy nee na booy na fekk muy lu rëy lu jar puugarewoo ngay puugarewoo comme ni ko Xaalid defee woon waaye bul puugarewoo ay koddaay loo xam ne taxul mu am solo arab yi dañuy wax ci seen léeb laa fil ayir wala fil nafir loolu dañ koy wax nit koo xam dañ koo jubloo tuutal jublu ko wax de ko yow doo dara euh, cosaanal wax ji fi mu bàyyee ko mooy abu sufyan ibnu harb jamono yim yoree njëggum quraysh bàyyee koo saam euh, te bi muy bëgg a yegg si madina mu ragal jullit ñi dog ko nangu njëgg ma daa yónnee woon ci waa quraysh euh, di leen foñloo pour ñu ñëw aar njëgg mi waa Quraysh ñëw ci njiitul Utbatu bnu Abi Rabia Utbatu bnu Rabia jiit leen ñu ñëw gannaaw gi nag Abu Sufyaan ci ay pexeem teggi na yoon ya faxe ba rawale njëgg ma yónneewaat ca gaaña ne leen ah, njëgg ma kan mucc na dëpp leen waaye waa Quraysh dañoo bañ ne déedéet faw ñu toog fi ñetti fan di rey ay gëléem di naan sàngara di tëgg fecci ah, ak di poogarewu ndax bu ñu araab yi déggee man ñoo wekk xam ne ñun kenn duñu yàpp Euh, loolal ci lañu nekk ba jullit ñi fekk leen fa mu sabab xare badru euh, muy xare bu metti woon ci waa Quraysh ñu rey seen sang yëpp màng seen alal jàpp ca ay jaam yóbbu Madina euh, bi nga xamee ne nag Abu Sufyaan wax na gaañu ne leen dëpp leen ñu bañ banu Zuhra rek ñoom ñoo dëppoon waa banu Zuhra moom nee na ñoom ñëpp dëpp nañ kenn ñoom te teewul xare badru ba leen Abu Sufyaan gisee nag la wax waa jooju ne leen laa fil ayr wala fin nafir bokkuleen ci ñi aar njëgg mi bokkuleen leen ci ñële dee xare foofu la wax ja bàyyee ko euh, xaalid nag mooy xaalid ibnu yazid ibnu muawiya muawiya ibnu abi sufyaan ku ne xam na ne bi muy bëgg génn àdduna dafa wutoon li ñuy wax waliyul ahdi ne gannaawam doomam yazid na ko wuutu ci xilaafa gi bi nga xamee ne faatu na doomam yazid nekk xalifa doon ko doywaar di mandi di rey nit di jëf kabaayir yoo xam ne lépp lu lislaam daan bañ da ko daan def gannaawam nag eh, maanaam Yezid moomu amoon na doom ju ñuy wax Xaalid mu doonoon ko baax ku bari xam-xam waaw bokk na ci kilifa yi banu Umayya yi nga xam ne ñoo njëkk soxlawoo li ñu tuddee ulumul xikma indi ko ci lislaam fexe ba tarjama téere falsafa yu bari jullit ñi di ko jariñoo waaw Xaalid moom nag benn bés nee nañ daa toog ak Walid ibnu Abdul Malik ci jotaayu Abdul Malik Abdul Malik ibnu Marwan moo doon buur ñuy poogurawante ñoom ñaar Walid ne ko uskut yaa Xaalid fa wallahi ma tuaddu fi l-iiri wala fi nafir ne ko Xaalid noppil yow defu la lim ca njëgg ma defu la lim ca an nafir Xaalid ne ko way xag fa man lil iiri wan nafiri xayri jaddi abu sufyaana saaxibul iir وجدي عتبة بن ربيعة صاحب النفير نكو اي غوري تسكر نيال انا كان موما غنا ييتي العير والنفير ndax budé العير سما مام ابو سفيان موكو جيتي وون budé النفير سما مام عتبة بن ربيعة موكو جيتي نكو ولكن لو قلت بوني وون غنيمات وحبيلات والطائف ورحم الله عثمان بوون لول دي كون قلنا ني لا صدقت waaw maanaam lu wax jooju da ko ciy junj ne ko yow aw yow kay yaa amul lenn looy ndamoo ndax euh, samaam muy alxakam ibnul aas euh, euh, yonentu sallallahu alayhi da koo dàqewoon da koo dàqewoon génne ko madina mu dem taif foofu la nekkoon di sàmm ay gàtt bu sonnee dem toog ci ay garab resin di fa noppalu moom la jublu ci xobaylaat ba ci jamonoy Seydina Ousmane ci xilaafaam ci lañ ko door a mun a munawara ne ko yow kay boo amoon looy wax sa maam jooju ngay fàttaliku ak jëf ju doy waar jooju moo tax mu ne ko law qulta boo ne woon xunaymaatun wa xubaylaatun wa taif wa raximallahu usmaan xul naa ñu ne la sadaqta kon xare na nga poogarewu ka faxre xaalidin poogare gu toll ni poogare woo xaalid muy bil xiiri wan nafiir laa bul poogare woo bi xollatin ci koddaay min saraqi yu bàyyi ko ci sooy wattaqif na nga jàpp asabra muñ dilaasan muy mbubam koŋ saabixan mu jot jëlal muñ def ko muy sa mbubam koŋ mu jot waaye wala yi bul teet bul wattandikoo bi mi jenni omarin ci pakkub omar Euh, nee na na nga jël muñ def ko muy sa mbubam koŋ mu jot euh, saabi mooy mu jot waaye wala tattaqi bul teetee bul watli ko bi mijanni umarin ci pakkum umar euh, mijan pakk jumtukaay la boo xam ne dañ ko daan jëfandikoo ci guerre yi ñoom daawuñ tul wala ñuy jëfandikoo luy aar ci ngànnaay waaye pakk lañ daan yor goo xam ne moom lañuy ñuy fegee jaasi yàgg fett yàgg xeej yee jëm si ñoom mu ne nag bul yow bul wut pakk di ko fegalee sa bopp waaye na jël muñ rek def ko muy sa mbubam koŋ del muñ bul jotee bul xeex bul xuloo ah, Omar bi mu wax nag nga ne mooy Omar ibnu Abi Rabia benn shaa'ir la bu siiw waaw ah, mijanhu pakkam ba ah, moom moo waxoon ci wayam فكان مجني دون ما كنت أتقي سلاس شقوس كاعبان ومعصر سما بك ولس لمرون تيت سلاس شقوس نتلن مي كاعبان آه ومعصر وعجب ديوار لواتي والو غزل ومن نيوتا ليرل نينا وإن حملت ndem yanunga rayatal amri drapo mbirma fa kun nekkal ka jaafarin mel ni jaafar buñ la jiitalee ci mbir nang ci am fulla ak njàmbaarte ba mel ni jaafar ibnu abi talib aw da wala nga bàyyi boo mënta mel ni moom nga bax wala tastabiqi te bul jiitu nga ne ko jaafar lu mu defoon mu ne qad qutia dogeef na yadaahu ñaari loxoom ya yowma mutatin bisub xare muta walam yadaha te baywul drapeau ba li kamiyin ngir ak njàmbarte saw xaqi gu gudd laakin waaye moom ixtadamaha bokk na drapeau ba xobban ngir sopp lahaa ñel ko fa yaa lahu cey moom min sayidin cib sang muwafaqi ba de buñ defal tawfiq buñ dëppalel jaafar ibnu abi talib radiallahu anhu yonentu da ko yebaloon ci xare maanaam benn sariya xam nga xare yonent bi xare boo xam ne yonent bi demul woon daa yeble woon rek moom la ñu tuddee sarriya di ko jam on saraya wala fi di ko aw njàngal xare Mu'ta nag Mu'ta nag benn sarriya la woon boo xam ne bi gaañu waajee ba jekk yonent daf leen digal na leen euh, amirukum Zayd maanaam Zayd ibnu Xaarisa na nekk seen amir na jiite xare bi Zayd ibnu Xaarisa moom lañ daan wooyee Zayd ibnu Muhammad te sa dëgg-dëgg du doomi yonent bi nag waaye yonent bi da koo taban nii woon da koo adopté woon jàppee ko doom loolu lu xewoon la ca jamono jooja ba alquran tere loola ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiin ci lañ door a bàyyee di wax Zayd ibnu Muhammad di ko askanee bàyyam sa dëgg-dëgg nag mooy Zayd ibnu Xaarisa waaw Zayd moom nag Euh, xesta bu xaw a gudd la waaye jàppal na daal moom jaayoon nañ ko jaam mu nekk màkk di xale bu ndaw euh, yaroo ci kër Abu Taalib ba mujj ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax euh, bi nga xamee ne bàyyam gis na ko bëgg ko yóbbu moom moo bañ tànn ne day toog dëkk ak yonent Muhammad moo gën moo ko gënal moom la alquran tudd aw turam mboolem saxaaba yi lu ñuy bari bari lu ñuy baax baax moom rek la ci alquran tudd aw tuddam muy falamma qade zaydun minha wataran zawajnakaha waaw loolu xisa bu gudd la moom la yontu waxoon ne amirukum zayd fa in qutila fa amirukum jaafar ibnu abi talib fa in qutila fa amirukum abdullah ibnu rawaha al ansari fa in qutila fa sayaftahu allahu ala yadi rajulin min almuslimin bi gaañi waaj yonent leen bu ngeen demee seen kilifa mooy Zayd buñ ko rayee Jaafar mooy seen kilifa buñ ko rayee Abdullahi ibnu Rawaha al buñ ko rayee nag yàlla dana xubbil jullit nii ci loxol kenn ci ñoom daldi jun jund nag jëmee ci Xaalid ibnu Walid ne moom ci li moom la yàlla di ubbee xare bi ci gàttal bi gaañi demee fekk xare ba nag di xare bu doy waar te it ci aada yonentu bu daan yebal ab xare ne na ko diw jiite buñ ko rayee diw buñ ko rayee diw ñooñu muy wax buñ ko rayee ñëpp duñ dellu si dañ leen rey ci xare booba moo waral noonu mu waxee woon ko biñ demee euh, Zayd rey nañ ko ci xare bi Jaafar jël drapo ba ñu rey ko Abdullah ibn Rawaha jël drapo ba ñu rey ko euh, ñu door a jël drapeau bi nag jox ko Xaalid ibn Walid ci la julli ñi mu ci xara la bo xamne ne julli ni euh, taxul won ñu bari lol lol lol lim bu néew lañu euh, biñ démé nak fekk wa rumi bari mat téméri junni wala ñaari téméri junni ci ñu ko ñenn ñi netlé ci lim bo xam ne euh, julli ni man na matul sax ben junni lolu lu doy war la motax ñu bari ñom dañ ne won léegi nañ ñibi buñ démé wax yonent bi limu noni ni tollu ñi ñun mënu mënuñoo xeex ak ñom ñenn ñi déet Eh, bëgg dund ak bëgg àdduna jar du leen jaral mukk ñuy dëpp faw dañuy xeex doon dañ leen rey bañ bañ jeexit ñoom faw ñu dem xeex biñ defee loolu nag eh, xeex ak ñoom ñu rey Zayd ibnu Xaarisa Jaafar jël drapeau ba eh, ñu dog loxoom ndeyjoor bi mu téye woon drapeau ba mu téye ko loxol càmmoñ ba ñu dog loxo booba mu bokk drapeau bi ci doqam diggante doq gi mbagg mi ñu daal di dagg doq ga mu faatu radiallahu anhu waaw nee naa biñ ko rayee ci xare boobu euh, fekk nañ ci yaramam juróom fukki juróom fukki caw cawi jaasi ak ñeent loolu mu ngi xewoon ci atum juróom ñetteel ci gàddaay gi moo tax yoon sallallahu alayhi wasallam ne woon eh, jaafar ñaari loxoom yooyu ñu dog yàlla wecceel na ko ko ñaari mbagg muy ànd ak malaayka yi di naaw di dem fu mu bëgg a dem moo xam ne daana toog ci jotaay ba mu yàgg mu ténne wa salaam wa rahmatullah ne gaa ñi moo leen di nuyu moo tax Jaafar ñu ko daan wooyee dul janaaxayni borom ñaari mbagg yi sayidna ali ibn abi talib ci ay wayam nee nañ moo wayoon way wi wa jaafaru alladi yumsi wa yudxi yatiiru maa almalaikati ibnu ummi jaafar mi nga xam ne day gont ak xëy di naaw ànd ak malaayka yi mooy sama doomu ndey loolu ci faxru la moo tax mu ne laakinoo ixtadinaa bokk na drapeau ba xubban laha fa yaalowoo cey moom sa sayidin cib sang moo faq ba mi defal tawfeex xare boobu nag bi drapeau bi mujjee ci loxol Xaalid ibnul Walid ci la julli ni door a gañe waaye ngañaay loolu nag jàppal ne maanaam xaalit ak njàmbaaram ak ay pexeem fexe na ba raw rawaale ña desoon ci jullit ña ndax la jaadu woon ci xare bu mel noonu mooy benn jullit waratoon a ñibe dañ leen waroon rey ñoom ñëpp bañ jeex ndax na leen noon ya gën a euh, ëppee woon ak nañ leen ëppee woon ay jumtukaay waaye Xaalid ci ay pexeem euh, jëflante nag ñoom ba faxe ba fas ba faxe ba rawale boppam rawale ña desoon ci jullit ña ñu dellu ma Madina loolu loolu lañ tuddee ngañaay la waaye sa dëgg-dëgg du caagi ne dañoo not euh, yéeféree wala dañ leen a dàq nena wakun na nga nek idastun jitta ndem sakof na la ndimbal misla man di melni ka nga xamne ne qarena ardal ida sufus non ya bi kulli tarfin ànd ak fas wu tedd bepp fasu sal moy fas wu tedd ablaq bay aji pit pant faras ablaq moy fas wu am lu wex ak lu ñuul bu fas bu jigen balqa ñu le ko jamo bulaq waaw kooku xare woon suufu noonu ya ànd ak fas yooyu mooy xalifa bu ñuy wax al mu'tasim billah ibnu harun rashid nga xam ne moo doon juróom-ñetteel ci xolafaawu banil abbas waaw moom dafa toogoon en tant buur dégg ne waaruum euh, xeex nañ ci réewi jullit ñi ba jàpp jenn jigéen ju bokk ci banu hashim jigéen jooju ne nañ ki ko jàpp bi mu ko jàppee daal di koy pes dafa yooxu ne waa muxtasimaa waa muxtasimaa ah, di woo ndimbalal muxtasim bañ nettalee muxtasim loolu nag euh, ak jomam mayutu ko mu toog mënatu a muñ mu daal wax na ne maa yajiu ilayki l muxtasimu illa ala al ablaq nee nañ sax euh, biñ koy wax loolu moom muxtasim mi ngi yoroon benn kaas euh, ak naan nekki mu war cee mu war koo naan waaye da ko delloo gëñ ne moom dootul naan lu dul dafa xob bi dafa dafa dafa xeex ak noonu ya ba musal ndaw soosu ñu jàpp mu di ko woonoon waaw li woo ay soldaaram nag gaañi war ay fas mu jiite leen ñu dem dëkk bu ñuy wax Amuriya waaw ne nañ booba mbooloo mi matoon nañ juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne ñoom ñëpp e, ñi ngi war ay fas yu pitipant te Amuriya booba mooy dëkk bi gënoon a tedd ci waa Rome kenn mosu fa dugg di xeex ak ñoom waaw diirub lislaam am kenn benn euh, it boo xam ne jullit la mosuta dugg ci amuriya mu dem di xeex di xeex ba ubbi dëkk ba daldi woo jigéen ja jigéen ja wuyu ko ne ko la bayka la bayka mu door a laaj ne nañ ko jox kaasam ba mu mottali lam doon naan waaw kon moom euh, woo gi ñu ko woo woo gi ko woo ndaw si woo fa mu toll booba ay kilomètres yu bari dox na seen diggante loola moo daw yaramam moo ko yëkkati tax moom en tant que buur yeblewul mu jógal boppam ànd ak soldaare dem xeexi ba nanguwaat jigéen jooja nee sax njëkk muy dem di xeexi euh, séddale na alalam def ko muy ñetti xaaj ne benn bi na ko ay doomam donn yeneen ñaari xaaj yi euh, moom ñeel na yàlla de maa ne ko def ñetti xaaj benn xaaj bi ñi ko war a doon nañ ko donn benn bi da koy joxe ngir yàlla benn bi ñeel na ay jaamam moom lay wax ne wakkun na nga nekk isastun jitta ndem sa koof ndimbal mis la man di kem ka nga xam ne xasa xare na ardal ida suufus noon ya bi kulli tarfin ànd bépp fas bay aji tedd ablaq bay aji piti pant kooku mooy al muxtasim billah ibnu harun rachid di juróom-ñetteel ci xolofaawu banil abbas wasum na nga toggoo adu wa diini noonu diine bil xasfi ci gotti ci torox wakun nekkal misla abi yuusuf kem ku ñuy wax abi yusuf di taqabuqi kay boroom ak rëy rëylu nee na noonub diine moom na nga ko gotti na koo ko troxal na nga mel ni abi yusuf di taqabuqi kay boroom ak rëy rëylu nga ne ko abu yusuf lum def mu ne radda delloo na kitaaba man leetarub ka nga xam ne daxaahu woo na ko lil waxaa jëm ca xare ba delloo na leetar ba minhum ca ñoom mu mazaqan muy leen xottite li fartil xanaqi ngir ëpp mer ma dana ka ko bindoon leetar di ko woo ci xeex dafa xot leetar ba delloo ko woo waqaala mu ne ko innii naka man duma ma du ma jël bi nga këyit mukk di la tontu laa ujibu du tontu bi si waa jaysin dara ab xare ab armée laa lay indi léegi rek mu nekk tontu li mu ne ma laa ujibu du tontu bi si waa jaysin dara ab xare ngaram ramin bay aji bari wa xaylin ak ay fas duluqi yadu way toftaloo xare bu xumb war ay fas yu yu taftalantoo laa lay tonte wa daraba mu samp alfustaata bergende ba mu samp bergende ba fil xiini ca saasa waxat axaata tamit moom peeg na jeysoo ab bi bihim ca ñoom ka sawdaqi mel ni ab lam nan ci saasa rek mu yegg ba samp ay bergendem ay xareem wër waa dëkk ba mel ni ab lam na muy wëreeb loxo وكان نكنا مالا خمنا قد ابصروا جس نكو من باسي تي ترام ابلغ دي غنا جوتال من جوابي تي تونتام لا المشبرق بدي بون خوتي نانا بام يكسي با خيا با كوماسي ييت لام لين وون تي خيا با مو غنا تار كيت گم دون خوتي ايوا ا أه، ابي يوسف موي يعقوب أه، ابن يوسف ابن عبد المؤمن moom it kenn loon ci ay buur bañ ko bindee leetar di ko woo ca xeex loolu la defoon mu dafa ne woon aljawaabu maatara laa ma tasmax waaw tontu li mooy li ma wan nga gis waaye laa ma tasmax du lu may wax nga dégg sadd bayta mutanabi nag ne fala kutba illa al mashrafiyatu wal qana wala rusla illa al aram ramu yaa saaxi yow sama àndandoo washgal na nga soxlawoo fusxatal umri yaatug dund bi bi maa ci loo xam ne yaq ni dana jariñ dund bi yaatu bi na ko paase ci lu am njariñ wazur na ngay ziyaara xibban ci jëllal rusuumal ay xaqi genti pox am po bu mënta ñàkkit na néew genti fo dee fa dem dee ko siyaare xibban ci jëllal dee fa dem lu néew a néew wabki na nga jooy ala dhanbin ci bakar wa qalbin aqal bo xamne qad qasa wow ka soxri ba melni ni na soxru don wabki na nga kon ala dhanbin ci bakar wa qalbin aqal bo xamne qad qasa wow ka soxri ba melni ni doj xol bo xamne lam yastafiq du min hawahu ci bànneexam ah na nga tit ci sa xol bu wow bi sa bàkkaar yu bari yi del ko jooy di ko jooy bi muqalatin ci nagu bët woo xam ne ka muqalatil yi day mel ni nagu bëtu xansaa ba nga xamee ne bakkat jooy na ala saxrin mbokkam mu ñuy wax saxru bila tarafuqi ci lu ndànku xansaawu benn shaairatu la boo xam ne e, muqadramatu la muy waykat yi nga xam ne dañoo dund jaahiliya dund njëlbeenu lislaam ñoom la ñu tuddee al muqadramuun xansaaw kenn la ci ñoom ca jamonoy jaahiliya nag la amoon mbokkam mu ñuy wax saxru mbokk ma faatu mu di ko jooy di ko jooy di ko way lu bare bare bare bare bëri moo ko doon way banaan yudakkiruni tuluu shamsi saran wa abkiihi li kulli gurubi shamsi ولولا كثرة الباكين حولي على إعوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أقي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي xansaawo nee nañ mooy jigéen ji dàq way ci jigéen ñi dafa amoon ñaari mbokk muy saxru ak muawiya ñaari mbokk yu baaxoon ci moom biñ faatoo nag mu jooy leen jooy yu bari yudhakiru ni tuluu shamsi saxran nee na fenku jant bi rek daf may fàttali saxru wa ab kiihi danaa jooy saxru li kulli xurubi shamsi ci bépp soowug jant soowug jant yi daf ma koy fàttali ma di ko jooy waxin wu foor la ci bayaan ndax loolu li mu ci jublu rek mooy saxru jàmbaar la woon ku tabe woon ndax tuluuxu shamsi mooy waxtu wi xeex yi daan commencé kon bu jant fenke rek xeex jot sama xel dañ ci moom ndax jàmbaar la woon waaye soowu jant mooy waxtu wi ñu daan taal di togg ngir berndeel ay gan kon saxru ku tabe woon moo tax bu jant sooyee waxtu wu ñu war a taal ngir berndeel ay gan jot rek sama xel dem ci moom ak tabam ma di ko jooy nee na walaw laa kasratul baakiina xawli ala ixwaanihim nee na du man kenn ñi seen mbokk faatu ñu toog di jooy seen mbokk yu bëri nañ ñoom laay roy rek waaye bu duutoon ak ñoom la xataltu nafsi yi kon damay rey sama bopp mel ni dañ ne ko waaw yow kon sa mbokk mi ak mbokk yi ñëpp a yem mu ne deet ñoom sax day dëgg la ña ngay jooy seen i mbokk waaye wamaa yab kuuna la aq yi seen mbokk yooye melu ni sama mbokk mi de walakin oaz yi damay defal an nafsa uh, bi taassi anu moom lay wax ne bi muqlatin ka muqlatil xansaayi if bakat xalaa saxrin bi la tarafuqi xansaaw nag loolu ca jaahil yi la ko la woon waaye bi yàlla dogalee lislaam ñëw ba mu dugg ci lislaam ba lislaam yar ko ba mel na mu war a mel nee nañ bés am na benn xare ñetti doomam ak borom këram ñëpp ñu faat leen ca xare booba te biñ ñëwee wax ko ko ne ko sa borom kër faatu na sa ñetti doom yëpp ràññ leen ca xare ba tegu ca lu dul alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla mi ko قول الواكرم نك اي شهداء رضي الله عنها لول الاسلام دي داف نت او كبكا فارعة ولا جوي ملني جوي فارعة على الوليد تي وليد وبكا قندف اك جوي قندف وقرنق اك قرنق ولا بوك جوي جوي ملني جوي فارعة فارعة موي مبوك مجيين وليد ابن طريف walid ibnu tarif dafa génnoon topp ci jamonoy haaruna rachid ñu ray ko mbokkam mi daal di koy martial nag ne ayaa shajaral qaabuuri maa lakki muuriqan maa laka muuriqan ka annaka lam tajza ala ibni tarifi ay yow garab gi di di ko jooy bay wax ak genn garab ni ko ay yow garabu qaabuur gi lu tax ngay sëq daa mel ni yow tiitoo ci faatu ibnu tarif فتن لا يعد زاد إلا من التقى ولا المال إلا من قنا وسيوف فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف عليك سلام الله وقفا لأنني أرى الموت وقاعا بكل شريف nee نتلو nit la woon koo xam ne laa yahudu zaada illa min زاد التقوى daawul lim alal illa min qinan ndarem dafa bàyyeekoo ci ay xet wa suyufi manam xex ba màng rek nako faqat naka ñak nañ la feq foqdaana shabaabi walayta naa faday nañ la kem ñàkku wax mbaane ya aka neexon ñu jot la bi ulufin ci ay junne min fi diyaari ci sunuy ndaw nako alayka salamu lay waqfan li annani na ni aral mawta waqaan bi kulli sharifi de daal daa mel way teddi rek lay tan ñom lay dal ci ñom kon boo mënta jooy jooye xansaaw euh, nga jooy jooyi faare am yi nam doon jooye alwalid ibnu tarif bay bëgg a jooyloo garab yi noonu wa bukaa xindifin ak jooyi xindif wa xirnaqi ak xirnaq xindif moom euh, ne na moo doon soxna Ilias ibnu Mudar moom nga xam ne maam loon woon ci maam yonent bi sallallahu alayhi bi borom këram faatoo dafa génn rek tëg tëg një mel ni ku jommi di dox ci àll bi nekk ci loolu ba daal di dee moom noonu la téye ñëw jëkkëram jooju bi mu génne àdduna xer nekk mi mooy mbokkum tarafatu ibnul abd mook tarafa ibnul abd waykat boobu ñoo bokk ndey benn waykat la bu jigéen comme xamsa ak faarixatu mi rek euh, waaye moom jëkkëram dafa tuddoon bishr ibnu amr ad yi euh, benn bés mu demoon cib xeex moom jëkkëram ñu daal di ko fay rey moom ak aw nitam mu jooy leen martial leen ci ay way yu bari la yabudan qawmi alladina humu sumul udati wa al-juzur an-naziluna bi kulli mu'tarakin wa tayyibuna mahaqid al uzur loolu bok na ci ay jooy yu mu doon ak nitam ñoña aw kun wala nga nek mutammiman di aji mottali buka mutammimin joy mutammim ala dhunubi ci bakare warju te nga yaakaar afwa mu'tiqi njéggulul aji goreel ji mutamim ibnu nuwayra at-tamimi mooy mbokkum malik ibnu nuwayra malik mi nga xam ne moom la arab yi wax naan fatan wala malik ah moom day jàmbaar la waaye melut malik ibnu nuwayra fatan wala malik malik ibnu nuwayra nag eh, moom it bu doy waar la boo xam ne xaalid ibnul walid moo ko rey ci jamonoy xoroobu ridda gannaaw bañ ko tuumaalee ne moom euh, ab naa feq la daal tax dëgg-dëgg gëmul yàlla loolu nag nee nañ njuumte la loo xam ne daloon na Xaalid ci rey gim rey Maalik ibnu Nuwayra ci la ko mbokkam moom muy Mutamim ibnu Nuwayra at-Tamimi doon ko jooy bokk na ci ay jooyam ay wayam ko doon way لقد لامني عند القبور على البكاء رفيق لتضراف الدموع سوافك فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادك فقلت له إن الأسى يبحث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك dana am na may yedd ci jooy gi may jooy saa bu ma gisee bàmmeel ndax daa daa mujjoon fu mu romb bàmmeel di jooy لقد لامني عند القبور على البكاء لقد لامني يدنما على البكاء تي عند القبور فبامل رفيق بن اندو موما يد لتثرى في الدموع غير تور غيمي تور رونكن يا اسوافك يدوي تورو اما تثرى دنجو تغ تفعال للتكسير فقال من واو اتبكي كل قبر رايته ndax bepp قبر boo gis rek da nga koy jooy ngir xabru malik لقبر لقبر سوا بين اللواء فدكادك فقلت له منكو ان الاسى يبحث الاسى واو نجاقر داي داي داي داي قتي نجاقر ني فدعني باي ما جوي فهذا كله قبر مالك ننا وكنا كالقميص البطن بأجي قيف ابير من زاد الربا تي يوبلو wastabix na ngay ndékke wax tabiqi te ngay njogonaloo xamrata taqwa sàngray ragal yàlla nee na ab riba moom na nga xiifal sa biir waaye na ngay ndékki di njoganalu ci sàngras ragal yàlla nekkal ku ragal yàlla tey wat ndiku lu lewul lu mel ni ribaaf